ay at ci ginnaaw Bédouane nekkoon bee bi gëna taaru fi ci afrik sowu jant waaye léegi dépotoiru mbalit la gëna a nuroo bu njëkk euh, fii ñu taxaw nii mënoon ngaa sol sa yére yu bees pour ñëw fi jaaxaan fi heure bu la neex nga dem du sàq du def dara c'était l'une des plus belles plages ci àddina waxuma sax Afrique mais ci àddina tey ji gis nga ni mu mel yàqu-yàqu tefesu yaraax naqariñu trop lu yàqu tefesu yaraax nag mooy ni tefes gi mel tefes gu dal la woon ndox mu dal bu set bu bari jën parce que fii jën yi dañ fiy juree mais jën yi aussi dañ fiy màggee. li ko waral di déchets ménagers ak industriel yi teer ci tefes bile. li ko indi mooy pollution pollution industrielle d'abord pollution ménagère aussi parce que nit moom da ngay wax te yàlla tax. mais ñun fii ci tefesu Yaraax li ñu gis daal mooy mbalit mi bari na di jóge fu nekk di fi teer ndox mi yàqu na parce que ndox mu bon bi nekk Ndakaaru. day jaar ci ñaar fukki canalisation ak benn ñu sotti ko tefesu yaraax te géej gi amul courant donc day gën a yàq géej gi loolu lañ fiy dund ba bërki démb boo seetloo noonu mbalit mi bi ñuy sotti feneen mu sotteeku ñëw ci tefes gi noonu lañ fi gisee benn baleine bu ndaw dauphin bu mag la moom moo dee ci biir géej gi mais ndox mi da ko puus ba mu ñëw teer fii ci cité ISRA donc noonu la mbalit mi aussi di doxee ci biir géej gi mujjee fii. comme niñ ko gisee kese. la dese mu nekk ay gàllankoor yi nga xamante ni am na ay njeexital yi bari ci nàpp bi nga xamante ni ñi bëri ñi bàyyeekoo ci bile bërëb ci loolu lañuy daan seen doole. wàllum pêche bi fii ñu taxaw danga daan taxaw fii fii ay jën di fi di fi di nga gis seen jën yi sani mbaal laaw jàpp lu la neex tey jii balaa ngay ngay am jën di nga daw di nga lakk. ñetti 60 mbaa mbaa mbaa ñeenti 60 doog doog a nappi cela veu dire que jën bi daw na li ko indi mooy pollution polition moo dàq jën yi fi ne nii pêcheurs yaa ngi nii mën ñoo dem bi am dara essence bi cher na nga bëgg a daw 4 bidons 5 bidons 6 bidons du 60 litres dem ñëw boo ko defee ñaari yoon kaaya musiba daal na la te loolu moo fi am pêcheurs yi yëpp moom moo impact impact euh, économique bu bu metti la pêcheurs yi nag. absolument mais ñun fii ci tefesu Yaraax li ñu gis daal mooy mbalit mi bari na di jóge fu nekk di fi teer ndox mi yàqu na parce que ndox mu bon bi nekk ndakaaru day jaar ci ñaar fukki canalisation ak benn ñu sotti ko tefesu Yaraax te géej gi amul courant donc day gën a yàq géej gi loolu lañ fiy dund ba bërki démb boo seetloo noonu mbalit mi bi ñuy sotti feneen mu sotteeku ñëw ci tefes gi noonu lañ fi gisee benn baleine bu ndaw dauphin bu mag la moom moo dee ci biir géej gi mais ndox mi da ko pousse ba mu ñëw teer fii ci cité ISRA donc noonu la mbalit mi aussi di doxee ci biir géej gi mujjee fii mais ñun croiser lañu wu ñu les bras ñu ngi wax ak guvernement yi ñu ngi wax ak partenaire au développement ñu ngi jóg aussi di bale jël nañu gris def ko ci biir géej gi ñu ngi wax ak suñu mbokk mool yi di wax ak gouvernement bi ba am ay pexe pour aar napp gi ak aar géej gi parce que loolu dafa am solo. jafe-jafe géej gi moom yéen ñëpp gis ngeen moolu yàgg nañ yàgg nañ toog di si jooy te boobu léegi ba tey jii may wax yow dañ siy jooy canal yaa gis boo wàccee géej gi gis nga nu mu salte canal yi noonu la noonu la bëree gis ngeen ndox rigole yi waaw tax na léegi napp bi yàqu na carrément boo génnoon nii léegi-léegi nga gis gaal gaali ndaw yi gaali mbaal doos jënuy soog a judd loolu yoon la loolu du yoon te tey jii mënoo dem di xeex ak ñoom wala ngay xuloo ak ñoom loolu mënul nekk même instant suñu président moo ci war a mën a jàppale lu si lu bëri te tey géej gi nii bu yàqoo ñu ñëpp la yàqool bu avancé tamit ñu ñëpp la avancé dañuy taxaw di ko jooy fu nekk gis nga fii boo génnee li li si ay kondir noonu la bëree tax gi sax mënoo see sangu géej loolu ñaaw na salte waaw boo demee tamit ba paas ba gis nga nu mu mel waaw jën amul jën instant yi mënul am jën amul fen gis nga nu ñu toogee nii fu ñu toogee fii nii fii la ñuy suba fii la ñuy yenn ngoon gisoo jën jën mënatoo ko gis fenn géej li si nekk si yàq moo bari. waaw bu bees la parce que ñu ngi remarqué loolu am na fanweeri at ñun suñuy papa bi ñu fi nekkee ñi nekk si usines yi dañ leen doon woo pour ñu liggéey ci usines yi ñu bañ parce que liggéey amoon na ci booru géej mais léegi géej gi amul jën usines yi tëj nañu ndawal boo lekk sax amoo ko bu njëkk booy dox ci tefes gi da ngay gis ñu toog di lakk jën mais amatoo jën boo lakk danga nga doon toog sa kër ñu yónnoo le jën loolu amatul boo nekkoon ci géej gi dangay ngay nuuru rek gas nga am ay buuj nga baxal ko mu neex bu bëgg dee wala nga am yoos bu sew nga pépési ko ah, suñu mbokk joolaay xam nañ li ñuy wax mais loolu yëpp amatul yaraax parce que gisatoo sax waasintóor boo demee ci teeru bi teeru bi dafa wow koŋ kayaar amatul jën mbuur amatul jën jën bi ñuy lekk Sénégal li ci ëpp Maroc ak Mauritanie lay jëm renversement de situation bu doy waar ndax rek ay at ci ginnaaw mool yi liggéey ci géej gi moo leen gënaloon fuuf rak ci dolli tamit exploitation pétrole bi nara a jur moom itamit ay jafe-jafe. léegi nag bu ñu ci tegee exploité pétrole ak gaz gi naam war nañu dàmp mool yooyu parce que ñoom la ñuy gën a yàqal. mais war nañu aussi ca koppar ba fay jóge ñu koy denc fonds six mu am lu luñ ci coppati jox ko mool yi parce que béykat bi bu nekkee période bokkoor bekkoor am na lu ko gouvernement bi di jox sàmm bi bu nekkee période bekkoor am na lu ko gouvernement bi di jox pour jur gi mais mool gi bu nekkee période kaayee nga xam ni jën géej gi amatul jën gouvernement bi waroon na jën jox ko ndàmpaay bu ndaw pour moom mu am lu mu suturla moom ak njabootam. mu nekk environnement bu inviable bi nga xamante ni da leen di indil ay tolof tolof yi ñeel wàllum wér gu yaram. ah c'est bien sûr parce que fii fii boo fi sangoon léegi ay bouton sopp la. xale yi léegi te xale yi mënoo leen tere xale yi dañu fi dugg mais buñ fi duggee ay ay ay feebar rek lañ fi jëlee ay di wokkatoo ko yooyu te loolu yëpp pollution bee ko indi ça c'est l'impact euh, euh, comment dirais sanitaire l'impact social mooy li ma la wax ni léegi léegi yow sa jëm bopp mënatoo am dara pêcheur bu fekkee ne da mu ngi dem géej yore yore yore ay mi ay milliers de personnes yoo xam ne ci moom la ñu dépendre ñooñu amatuñu dara parce que moom mii dem amul bu amul famille bi du am bu famille bi amul mbokk yi du ñu am loolu mooy impact social impact social donc ñetti impact yooyu moom mooy impact sanitaire impact e, social impact économique. su dee projet de dépollution bi ñu taxawal ñoo ngi koy jëmmal moom Saliou Diouf de gisu ko. absolument parce que y' a y' a un projet de de la dépollution de Bédane boo xam ne ça a démarré depuis bi ñu ko kii yeeg léegi ça fait trois ans mais jusqu'à présent ça tarde à, à se réaliser. On ne pas à quel niveau le, le Tiangué, on ne sait pas. Je À mon niveau, je ne sais pas. Mais en tout cas, bañ ko démarrer ak léegi kii na. Ça bañ ko démarrer ak léegi ça fait une trois ans yoo xam ne dara léegi nag kii bu boobu commencé woon xam naa ne ça peut contribuer à à, à, la dépollution parce que bu paree woon moom ils vont supprimer tous ces canaux que vous voyez ñuy déverser ci kii bi yooyu moom euh, comme démarrer gul nag toujours le problème insiste. Mbacké Seck moom jàpp na ni rek ñu ngi doxal projet bile te su anto lu bëri dina soppeeku. waaw am nañu projet de dépollution de la baie de bi nga xam ne ñun ñi dëkk ci tefes gi ñoo wax gouvernement bi mu jël ko ñu dénk ko ONAS directeur Mamour Diallo aussi di ci def liggéey bu mucc ayib projet boobu commencé na dox boo dee gan doo gis doxaay bi mais commencé nañu gas tuyau bi nga xam ni fukki kilomètre ak juróom la war a jóge port de Dakar jaar yaraax jaar caaro yi ba yegg Petit Mbaaw foofu ñu ngi fay tabax benn usine bi nga xam ni usine boobu liggéeyam mooy segg ndox mi mën na segg lu tolloog cinquante mille mètres cubes d'eau muy cinq millions de ndox mën na ko segg par jour balaa ñu koy sànni géej mais est-ce que war nañ sànni ndox boobu géej ci dëkk bu ñàkk ndox est-ce que buñ ko sànnee du gën a yàq géej gi xamuñu war nañ ko jàngat dëkk bi aussi ubbi nañ mbedd yi yaatal ko ba camion mbalit yi dañuy daw ba booru géej jël mbalit mi yóbbu ko mbëbës loolu nag moo tax fu mu ne nii sooy topp tefes gi plastique rek ngay gis mais doo gis benn yoon mbalit mu nga xam ne dafay nëpp saxe andi ay weñ donc plage yu Yaraax comme plage yu Caaroy li ci ëpp léegi comme tefesu àdduna bi yëpp la plastique dong la am te plastique def nañ lépp pour xeex ko am na une loi en 2015 am na une loi en janvier 2020 pour yu xeex yi parce que lii ngay gis nii noonu la plastique boobu tas mel ni poussière boo laalee sa table mu am poussière ci biir géej gi ci kaw muy flotter noonu nga amee microplastique bu jën yu mel ni gis mën a lekk après yow nga ñu toggal la gis bi sa ceebu jën nga lekk gis bi donc yow microplastique bi mën na finir ci biir nit ki te dara baaxu si donc daal li am solo mooy gouvernement bi dafa war a continuer am pas-pas ñun population bi ñu ànd ci gouvernement bi wuti ñu ñu jàppale mais ku nekk sa bopp yaa war a bokk ci effort yi pour ñu tefal ñu setal tefesu Yaraax ak teflu senegal yëpp ñu aar napp gi aar géej gi ba senegal mën a jëriñoo set ñu ngi ñaax askan bi fa yeewoo ñu bàyyi xel ci dese yi ñu fay tuur di woo nguur gi itamit mu jël ci ay matuwaay tu encore aussi dans les populations yi am na ñoo xam ne aussi mbalit mi fii lañ koy sali tuur mbalit ci ci tefes kenn mësu ko gis mais fii donc lañ la ñu gis ngay tuur mbalit dañu wax a wax ba sonn waaw il faudrait que ñu jël ay mesures yoo xam ne vraiment dañuy bàyyi di tur mbalit mi ci ci ci ci ci tefes gi vraiment aussi la pollution ménagère aussi ça joue te gis nga gis nga ko lii yëpp ay ay pollution ménagère. lu leer ba leer mooy melokaan beedo aan jamono jile mool yi. la gën a lor ndaxte fi mu ne ni seen activité sooxe na lool.